asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokk yu tedd yi fi teew yépp di yëkkati suñu kàddu ci ndigalam ki nga xam ne ci ndigalam aku ñaanam ak ci teewaayam aku digleem ci lañ fi teew muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax liggéey bii kat mooy borom liggéey bi ndax moo fi nekk Serigne Touba lu ñu ciy def itam ci ndigalam lañ koy defe sañu cee yëkkati bant te amul ci ndigal ci moom fu ñu ci yem looy falañ lañ cee yem lépp luñ ci war a def it lay jiitu mooy dem laaj ko ndigal ba jox ñu ndigal ñu door wax loolu kon ci turam lañ leen di nuyu ak sama bokk yu tedd yi ma àndal nga xam ne daanaka njabootu Serigne Touba gi ñi ci ëpp ñëw nañu. ndax xam ngeen leen ñëpp ay kilifa yu mag lañ kenn amu ci jot ku ci yaa ngi teewal kër yu mag yoo xam ne jëmbat diggante Serigne Touba ak bokka ñam àndoon ak magitaal bi ma àndoon loolu rek a tax ñëw fii nag kenn amu ci jot ku ci boo yebaloo ndaw mu doy kon cant gi sax jëru ko ndax seen bopp lañ koy defal ndax seen yëfa waaye kon Cheikh Mouhamadou mu ñu ngi yeesal cantam ak ngërëmam ci yéen li xam ne liggéey bi na ngeen ko daan defee ci kilifaam yoo ko jëkk wet li ngeen ko ci gunge ngeen ko ci ànd ngeen moom lépp kon ñu ngi ñaan na seen maam yu teddee àndewoon ak Serigne Touba te yéen itam ngeen àndeek moom noonu yàlla ngeen ca dajeeg payu yàlla day cee ngërëmu Serigne Touba di nuyu mboolem. kilifa yi fi teew ci wàllu adduna di ko teg ci loxol gouverneur de la région di Diourbel nga xam ne bi mu fi door a ñëw di ku baax di taalibe yàlla defal ko tew tawféex ñu indi ko fi waaye diggante bi li muy gàtt gàtt amul ko fi lu ëpp ñaari ay bis waaye dox na fi jéego yu am solo ndax bi mu àndeek waa assainissement ndax amoon nañ jafe-jafe. ma boole woon nag sëñ Abdul Ahad Ka ñu ànd di wër ndax fu ñu yóbbu ndoxum Tuubaa mi doonoon na jafe-jafe danaa ci dellusiwaat sax waaye mu jafe lool te Daaru Rahman xam ngeen ne bassin bu njëkk bi ak poofu di fa lañ ko def te condition yi metti na ndax ndox xam ngeen ne fu mu bari yoon ya du baax dana bari it yuy lore day yàq environnement kon loolu itam danaa ci leer laa lu gàtt ndax waxoon naa ko directeur assainissement soññ ko ne ko nañ fexe ba gën a sécuriser foofa fexe ba it liggéey bi di amal njëriñ nit ñi ndax ndox mu toll noonu mën nañ ko utiliser ci mbay comme ni ko réew tubaab yi defee biñ ci amee jafe-jafe nag yàlla def ak Cheikh mu Mountakha yéeg ne fi ñu wax kër kàbbu ñoom bi ñu xoolee foofu wax na ne mooy fi gën a baax waaye jafe-jafe rek mooy ni ñu ni ñu mën a fexe ba jot ci fekk solution bi ne def nañ ko maa gouverneur ak Abdoulaye Ka ñoo bokk toog ak service yëpp ñoo ko bañ xool ba gis na kër kàbbu lañ gis soo xam ne lañ bëgg lépp attanaw te fa gën ci ñoom bañ ko yëgalee sëriñ bi nag sëriñ bi jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mokhtar rakam wax ko ko ndax ci kilifteefam la nekk si yaa ma ne ko jërutoon nga di moo ko yëgal ndax yaa ma yilif yilif suuf sa kon sëriñ bi ci boppam moom ma yónniwaat ci moom ne ma naa ko ko santal gërëmal ko ko ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ne sëriñ ma defal na ko mboolem chef de service yi fi teew yëpp nag bàyyiwuma kenn ba ci ñu yor wàllu santé wàllu sécurité police ak gendarmerie ak sapeur pompier bàyyiwuñ kenn xam naa sëñ Ousmane buy lim dana ci gën a dugg di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñoo koy jàlle ba ñëpp mën koo accès kon di sant yàlla bu baax rek ci bu ñu suñ borom mayee ak fekk akub tal bañ teewaat fii ci waxtu wi di waajalaat màggal Tuuba ndax xam ngeen ne ñaari at yi weesu yëpp màggal nañ ko ni ko Sëriñ Tuuba digle waaye màggat nañ ko ci condition yi jafe woon ci nit ñi positifum nit ñi ak seenu dogu ak seenu jaayante ak seenu wane na Sëñ Tuubaa wéye ndigalu Sëñ Tuubaa moo leen gën a seen bakkan moo tax ñu màggat ko kon loolu liñ ci wara njëkk jànge te war ko ci gën a dërloo mooy ndigal du lore ndax boobu kat képp ku doon jëfandikoo sam xel la nga doon wax mooy màggat gi nañ ko indire waaye loolu suñ bakkan jëraluñu ko ñàkk way ndigalu suñ Tuubaa suñ bakkan jëraluñu ko kon nag santaat yàlla bu baax ndax fii lañ daa toog di ko fi waxtaane muy lu jafe màggal nañ ko ñaari mu jàll jàmm màggal guñ ci agsi ci kàttanu yàlla mii def di dindi ak ni mu fare suñ Tuubaa màggal gu ci agsi buñ ci àggee lépp wàcc màggal gi jàll mu yéegaat kon loolu wane na ne kum dalul xel sa digg ak Sëñ yaakaar naa sama xel dootu dalati bu bokk kon ñuy ñaan rek màggal gi ñu dugg ñu dugg ci te yëf yi bañ a yëkkati ko waat ndax jàngoor moom suñu borom moo koy indi mooy xam na tax mu di ko def kon yàlla na ko gën a jeexal ba ñépp gaynde ne ci jàmm waaye li ci am solo rek mooy màggal gi day ndigalu Sëriñ Tuubaa liñ ciy def lépp itam roy sëriñ Touba lañ koy def ndax sëriñ bi ci njaarim gii ñu nekk tey di ko fi defee fii la ko njëkk woote sëñ bu Boussa xam ngeen ne gàtt ba ba ci sëñ bi njëkk rey moom la ko sëriñ bi moo ko joxoon sëriñ bi àddina ak na ko sëriñ bi seddiloo ca at moom wala ma ca topp sëñ Balla Faali Jeng la sëriñ bi jox ndigal ne ko wax ñëpp. nañ la ko dugal kon luñ ciy def rek roy ndigalu Sëñ Tuubaa la kon màggal gi mooy suñu bisu fête indépendance ci lañ jot suñu bopp moo tax lislaam mën a tasaaroo ci Sénégal bañ na ko ba bi sëriñ bi ñibbisee sax ci la ndaje yi diine yëpp tàmbali kon wane na ne Sëriñ Tuubaa bañ ko yóbbu bu del siwutoon fa la lislaam di fay kon màggal gi ci la Sénégal jot seen bopp kon tawféex ji it mooy dem na ba ñëpp maase jàppee ko suñu jëf waxuma ñu yaakaar Sëriñ waaye mboolem ku di jullit màggal gi sa alali bopp ko def te Sëriñ Tuubaa noonu la ko yéene woon ndax laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi te Sëriñ Tuubaa loolu moo li jiitoon ci woote mooy jullit yëpp nekk benn kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ni ñu ko baaxoo defee rek bu ñu àggee ca première safar ba ba sëriñ bi wooteel ko boppam njàngum alxuraan bi ak xasiri bi daal day daal di tàmbali ba àgg ca màggal ga am na benn musaabaxa quraaniya boo xam ne ñu jàmbaare ñoo am mu mubaadara bi ñu ngi koy tàmbalee ci bu safar duggee jeexale ko ci rabia safar rabia safar xam ngeen ne sëriñ bi tudd na ko kon loolu lu am solo ndax sëriñ Tuubaa lu koy defal ak alxuraan ci war jiitu mboolem conférence yi nga xam ne commission culture ak communication bi suñu Abdul Ahad Mbacké jiite daana ko def soppiwuñ ci dara waa daayira Rawdu Rayaahin nga xam ne ñoo jiite wàllu culture lañ daa def mboolem conférence yi ñuy def ci penc yëpp danañ ko def te buñ ci àggee bu ñu amul lenn ngant wala ndigalu sëñ bi dem ñu yëpp danañ ko fekk incha allah bu bu mën mënta nekkit nag ku fa teew rek ñoo xam ne moo fa teewul sëñ bi kon loolu dara soppi ko ci mboolem programme yi ñu daa def ren incha allah fa yéene wéyal lépp li nga xam ne danañ ko ci dolli ren rek. mooy benn ndaje diine mu mag boo xam ne ndaje international lay doon ndaje mi it danañ ci invité fukki réew ak juróom Sénégal door a ñëw muy fukki juróom benn mboolem continent yi dana am ñu fa jóge te yëpp tànn nañ leen ba noppi ba incha allah dana ñëw te biir Touba lañ ko defee ci résidence Cheikhoul Khadim mu nekk ndaje mu rëy moo xam ne gën a wane Serigne Touba rek la ci jublu mi ngi tàmbali le 6 safar nga xam dana fekk màggal gi des ab diir ba nit ñi mën koo dund mën a gën a jànge lu bari ci Serigne Touba ñoom ña ñuy woo ñu ñëw itam buñ dikkee danañ leen wan lan yoon lan mooy yoonu murit jàngal leen lan mooy cosaanu yoon wi ndaje ma nag li ci ëpp mooy yoonu murit ak xam-xam yoonu murit ak diine Touba dëkku xam-xam. dëkkub diine loolu mooy thème bi ci biir loolu nag dana am ay waxtaan yu bari ndax ay fan lay doon bokk na ca lañuy ñuy njëkk def la jiitu mooy bu ñu wàccee danañ jaar Masaalikul Jinaan ngir gis ndax liggéey bu rëy la boo xam ne ci sumb yoon yi gën a màgg la bokk bu ñu fa bàyyi ko danañ jaar njaarim siyaare kër gu mag xool fi sëriñ bi fi ñu ko mu gis ci saaxir jaar ci jumaa njaarim xam ne Serigne Touba moo ko taxawal ci biir ak nekkam bu ñu fa jógee ñëw Touba bu ñu agsee Touba nag li ñu njëkkee def mooy dem ci jumaa ji siyaare ji Seexul Xadim bu ñu fa jógee siyaare ki ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax loolu mooy li jëkk ci liñ war a def bu ñu fa jógee danay siyaare ji maktabatu Cheikhul Xadim mooy daari kaamil ndax foofa xam ngeen ne lu rëy sa fa nekk jeexati sëñ Tuubaa ju rëy ndax faw ñu won leen jàngal leen li nga xam ne yoonu murit am na ko ñu gis ko xam ne waaqoon mal muus la buñ fa jógee danañ dem université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sumb na ko def ca milliards yu bare bari yoo xam ne ku ko tuddoon tey dana jaaxal nit ñoo xam ne yoon wi kon waxtu ne nam soso woon ca raabe ca Cheikh Mouhamadou Moustapha ba nëgë ni noonu lay wéyee ak taalibe yi ci jàpp yëpp buñ fa jógee itam danañ tànn lenn ci quartier dëkk yi nga xam ne kilifa yi ñoo ko sanc ci ndigalu sëriñ bi bokk na ca Gede dëkku suñu bàkki buso ndax xam ngeen li ma représenté joole bokk na ci it danañ dem ndaam wisite ko wisite la fa nekk ci daara ak xam-xam ndax Cheikh Mouhamadou Mourtada Cheikh Mouhamadou Mourtada def na fa liggéey bu rëy ci biir loolu itam daaray cosaan yi danañ fa dem xool ko bokk na ci daayira Serigne Souhaïbou bokk na ci daayira Serigne Abibu ak yeneen Serigne Abibu ndax xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko tuxal si woon moo ko fi indi woon muy jàngal Cheikh Abdoul Ahad ñoom ak Serigne Cheikh ak Serigne Bakk Madina daara ji ba na gën tey la gën a dund bokk na ci itam daaray sëriñ as jaxate ji ci biir jumaa ji nga xam ne Cheikh Mamadou Fadil moo ko sampoo mu ne ci biir jumaa ji ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikri wa tafahumi bokk na ci barab yi nga xam danañ ko ziyaare mooy xisbu tarxiya ndax xisbu tarxiya alali sëriñ Tuubaa la te ku fa ku fa dem da nga xam li nga xam ne yoon mu réalisé na ko bokk na ci réalisation yi danañ leen wan raay bi ndax raay bi ñu xam condition yi ñu ko liggéey ak hôpital Matlaboul Fawzayni bi nga xam ne murid yow ko tabax ci seen alal te loolu bariwul ci histoire fu mu am li ñëw ak saxaafa al muridiyya culture murid murid dañoo am seen culture bopp ndax gis nañ ne exposé yi gën a màgg ci ci ci ci àdduna tey boo fa demee da fekk murid yi di soli bàyyilaat di takki maxtu ngir ñàkk complexe gi Sëriñ Tuubaa def ci ñoom loolu itam culture murid dafa bari danañ leen gën a wan lii culture yoonu murid nga xam ne réewuñ ko fenn te day mel ni fii la am bokk na ci loola kaamil yi ñuy bind ci loxo tey boo xooloon Tuubaa liñ fi bind ci kaamil ci loxo kenn xamul lu mu toll loolu itam daañu leen kon ñu xool gis ko xam ni mu demee bokk na ca liñ leen bëgg a wan itam mooy lang riis gi nga xam ne làngooru riis na ko te am kilifa yu baax yu ci liggéey liggéey bu rëy ku mel sëñ Mbay Jaxate sëñ Babacar Jaxate sëñ Moussa sëñ Mor Kayre Seex Sàmb Jaara Mbay ak ñeneen ñooy demee ba ci nëgë ñi nga xam ne ñu ngi taalu ci wàllu wolof gën la dëgëral loolu kon loolu bokk na ci ñàkkut nag yoo fàtte ndax day lu gudd te jataay bi lay jot loolu waaye kon ñi ngi ubbee loolu di tënk tuuti rek ci waajtaayu màggal gi ndax yi ci ëpp solo am na ci yoo xam ne ren teel giñ teel a waajal gi xaw nañu ci dimbali kon yenn ak cant lay doon yi ci reset ak ñaax lay doon ndax ñu gën a góorgóorlu cant gi la ci jiitu mooy ren ñeenti forage bën nañ ko Touba ñetti forage la lañ programme ak benn boo xam ne man mii lañ ko mayoon ma war ko yóbbu ca sama sanj ba ca xisnul abraar yàlla def oto hôpital Matlaboul Fawzayni am jafe ndox te xam ngeen ne procédure état day yàgg may leen nañ bàyyi sama bos yóbbu ko foofa nañ ko te wax nañ ne bokk nañ ci forage yi ëpp ci dëkk bi dana ëpp hôpital ba kon dana dugg ci biir réseau beneen ba ci des it ngaabu la lañ ko bënn moom itam dañ koy connecté ak réseau bu mu dugg beneen ba ci des dañoo gisoon ne jafe-jafe yi li ci gënoon a metti mooy diggante daarul xudus daarul minan xaaxira ak sancaan yi rawat na fu mel ne boobureel ndax dafa am ginnaaw jàpp ay kërña ak daaru rahmaan ak ba ci kaw ba ca ndaamaatu moo tax bi loolu amee ba sëriñ bi joxe ndigal sëriñ Ahmadou Mokhtar itam ñu ngi koy santaat foofu ndax def na fi ci taxawaay bu mat ndax moo joxe ndigal joxe benn pàkk ci biir Darou Khoudoss ñu bënn fa forage ba ngir forage bi bu noppee nee naa leen teew yi nga xam ne état bi joxe da ko mu ëpp 30 kilomètres li ciy gën a nekk priorité mooy nañ fexe ba mu dugg ci biir Darou Khoudoss jaar kër Serigne bu ak si biir penc ma dem Daaru Minam de jàll xayra ba fa mën a jàll mu continuer dem Touba mosquée bu ko defee loolu xëy na bu duggee ci réseau bi dana ci mën a indi soppiku beneen ba ci des mooy bu ngaaw bi bi ci des mooy boobu ren moom itam noonu lañ koy xëcc yëpp daje li indi li am jafe-jafe rek mooy wàllu réseau bi réseau bi ñëpp xam nañ fi mu toll li ci yàqu dafa bari ndax bi ñuy wax ne 40 pour cent ci ndox mi day duggaat ci biir suuf yi loolu yàgg na bokk nañ ci li indi jafe-jafe nab bi waaye loolu itam sëriñ bi joxoon waxoon na ci ak président ba dox nañ ci ay jéeg yu bari étude bi di war a jëlee ndox mi Touba bokk indi ko ba Touba étude ba noppi na li ci des ak mooy étude réseau bi nga xam ne moo ne biir Touba te ñoom ña nga ca xëy na mën naa am balaa yàgg di ay weer wala ñaar weer ci ni ñu ko waxee ci lañ ca nañ ko waxee jox nañ ko daal ña ko war a liggéey. du ma dugg ci dat yi nag loolu képp ci des bu noppee ñu xam ne li koy liggéey nangam la bu boobaa nag moom da koy jébal sëñ bi sëriñ bi nag mooy xam ba xam da koy wat taalibe sëñ Tuubaa yi def ko wala day bàyyi nguur gi def ko waaye bu noppee ñoom ba jébal ko ko daal diirlu ko ci lu lu lu mu ci dogal rek ñu xam ne mooy mooy na war a demee waaye lañ ca waroon def ñoom def nañ ko ca ba ca des it doonoon jafe-jafe bu ñu jaaxal mooy nab bi. wax naa ko barki bu may sëriñ bi yónnee ci moom def nañ ci yitte moo ko assainissement bi ndax lu ma ñetti at wala ñeent waxoon naa leen leneen assainissement Touba de dara jiitu ko ci li war a def ndax màgget gi diir bu gàtt daa dugg ci nawet fii may waxee ak yow nii màgget gi ci catul wax set la ne wax set na xam ngeen ni mu baaxoo bu fekkee ni mu baaxoo demee ni la demee dëkk bi dana fees kon loolu problème bu rëy la def nañ ci yitte état bi génne 23 milliards yu jëm ci assainissement bi boole ko nab bi nab bi moom tàmbali nañ ko forage su bari tàmbali na di pompe muy dem ci réseau ba di dem ba am na yu bari yu tàmbalee wàcc am na kër yoo xam ne seen ndox kër yi génnoo nañ seen borom génnoon na ca ña ngay dugalaat seeni bagage kon sëñ bi yittee nit ñi rekk ay itteem armeel ya demal na ba am na ñoo xam ne seeni waajur mënatuñ fa àgg nag ndox wàccoon na dama xamaatu bi mu tawaatee nag waaye wàccoon na kon loolu jéego na te gis naa forage sa war a doon fukk ak benn lañ ci defaragul sii si moo fonctionné gul waaye lu bari jot naa wàcc ba wax na ne wàccagul na lu mat kon foofu moom mel na ne yàlla def na ci tawfeex ba incha allah dana gën a wàññi lu bari ci jafe-jafe yi assainissement bi it chinois yi nga xam ne. président Abdoulaye Wade moo leen indi woon ci dëkk bi ñoo yor liggéey ba kon loolu itam dañ ci soññ ñu yor assainissement bi ñu taxawu leen fexe ba luñ mën a gën a gaaw fii ak màgget gi effort yu ñu mën a def rek fexe ba ndox mu wàññi ndax màgget kat bu nekkee ci biir wax sax dana jafe ndax mbedd yëpp amut assainissement am na ci mbedd suuf yu bari te nit ñi ci mbedd suuf yi lañ daa jaar mbedd suuf yi nag. bu fekkee yëpp dafa taa dana gën a jafe kon luñ gën a mën a góor góorlu fexe ba nit ñi conditions yi nekkoon daaw ci lu metti mu bañ a amaat nañ ci góorgóorlu doon le rek jéego bu rëy am na ci ren ndax tarant bi xam nga ne lu ittee doon sëñ bi def yàlla def na daanaka àgg na yaakaar naa bu fekkee des na it bëri xañ na benn point moo ci desoon te foofa dañ faa war def benn centre bu mag boo xam ne la muy jël dafa bari te déggoowu ñëw na ñamoo ñamoom foofu waaye la ci des lépp wër na dëkk bi te loolu dana wàññi du bëri beneen ba ca des ak cant lay doon ndax sëriñ bi itteem jëpp mooy Tuubaa amul soxlay boppam maa ngi fàttaliku talibee ñu koy defal ci Tuubaa Mbul ci jamonoy Cheikh Sidi Muxtaar laa xamoon farata ji sëñ bi sàkku ma dox ko ci président ba yàlla def mu nangu ko moo yeneen ni tëli la woon waaye xam nga procédure état ni muy guddee ba bi muy bi muy sotti bi ñu koy bi ñu koy accordé sax boobu Cheikh Sidi Moustapha rek waaye bi ñu koy tàmbali xëy na daaw la diggante daaw ren lañ ko tàmbali liggéey ba sori waaye li ci yéeme mooy ba président ñëwee di ko wax sëñ bi da ko ne bu fekkoon danaa am soxla ne ma ne loolu jënd yitte jooju laa waaye nag amu yitte bu ngeen ko defee baax bu ngeen ko defatut lu wàññi dara li ma gën a daal mooy lu ñuy def nañ ko def biir Touba kon kooku Touba rek kooku itteel ci biir loolu itam yi nga xam ne ñaan na ko ay tëli yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir Touba kon am na ci yoo xam ne sotti na te itteeloon na sëñ bi ndax yónni na ma ne ma demee day soxla yu ma ñor ndax barab bu ci nanam demee bu ma soñoon ñu tëlil ma ko ndax dëkk bépp lañ bëgg tali waaye xam ne lépp kenn mënoo ko yàlla mi ko mën sax defu ko waaye nag ay priorité day am bokk na ca Daarul Karim bi nga xam ne Cheikh Massamba moo ko sanc ci ndigalu Serigne Touba moo Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Fadil la boole woon muy tindoo di ak ndindi incha allah bu àndee dogalu suñ borom Serigne Cheikh a ngi ni toog teewal fi Serigne Mamour suba danañ tàmbali liggéey ba entreprise ba ko war a def jekk na suba danañ tàmbuli liggéey ba bu ñaareel ba it mooy yoonu tindo di tindo di ni ma ko waxee ñoo bokk leen diggante Cheikh Mahoud Moustapha mooy dëkk bi mu njëkk sañc sanc xam ngeen la tax mu bàyyi ci tuba xusnu ma ab da tudd kon tindo di waxuma lañu fa dëkk waaye bu doon génn kër sax yayoon yi ñu tëlli ko ndax ndam demee fenn waru ko jiitu ba ca desit mooy bi jëm ci Baye Fall yi njabootu maam Cheikh Ibra ñoom duñ jàmbat duñ laaj duñ wax duñ ñëw ci sëñ bi sax ne ko bëgg nañ nangam joxe addi ak dégg lañ seq sëñ bi waaye sëriñ bi nag ci yërmandeem ak xam seen pëstéef seen taxawaay moo tax mu defoon ko yitte ba moom itam sotti ne bu suwaar ko tàmbali ak yeneen yi nga xam ne moo war a xëttale autoroute bi. moom mu agsi ci biir dëkk bi yi nga xam ne nag ñi ngi ci xëy na ñi ngi ñaan déwén wala déwén jéen mu sotti te ñor na sëñ bi mooy corniche bi nga xam ne moo nekk Touba ni defaree yoonu ndindi bi ñu fexe ba corniche bu wër dëkk bi ba ca dolli ko mooy 120 bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké defal na ko mu wër Touba gépp loola def ko autoroute bokk na ci yi nga xam ne ñor na sëñ bi kon daal ñi ñaan ci yàlla ci barke Sëñ Tuubaa yooyu yëpp niñ ko diggee te ne ca lépp sotte jàmm te bañ am benn gàllankoor fi may jeexale rek mooy ñaala taalibe yëpp ñu am ak fekke ak kàttan ak